ministère bi yore wàllu force armée maa ngi koy wax ne ko gendarme yi ak police yi nañ waxaat ak ñoom ndax am na ñoo xam ne kat ni ñuy jëflanteeg nit ñi loolakat kat du métier mi seen jikko ndax nag jàpp nit dóor ceene dugal ci oto jog ci kawam maate dem dóor yooyu kat jikko la yu ñaaw yu suufe yu tuuti ginnaaw am na loi yoo xam ne ñoo koy àtte nañu jëfandikoo luwaay yi parce que itam dema dema dem ba nit ñi faaleetuñ gendarmerie faaleetuñ police te dara warulu ko lu may ni ñuy jëflanteeg ñoom moo baaxut te noo ngi ciy teg bët kon nañ delloo siwaat seen xel xam ne réew mi noo ko bokk kenn ku ci nekk dangaa war taxaw taxawaayu defar te moytu ak yàq waaye nit ñi sonn nañ président bëgg naa maanaam nga subventionné prix yi prix yi ba ba ba mbas mi amee bañ dajalee xaalis bi di ko séddale ak ceeb bi dama laa waxoon damaa waxoon ne nañ ko teg ci prix yi ñëpp jot ci kon lépp looy dimbale doomu aadama nañ ko wàññee njëg yi buñ ko wàññee njëg yi ku dem ca bitig ba boo jëndee jot sa wàll kon noo ngi noo ngi noo ngi soññewaat julit yi julit yi bu kenn jàpp ne gouvernement bi daa bon nga baax maa ngi profité foofu tam di wax ministère bi yore wàllu ndox mi ne ko Euh, service bi nga xam ne moom la jox ndox mi mu yore forage yi ñi ngi bëgg rey baykat yi ci àll bi àttanuñ ko àttanuñu ko nañ leen bàyyeeg seen forage yi ñu yoral ko seen bopp ñii ngeen leen booleel àttanuñ ko dañ ciy gaañu te coow lu bari rek lay indi kon ministère bi ko yoree maa ngi koy woo ne na yërëm doomu aadama yi service boobu xaw ma ECOWATEX la xaw ma na xam ne maanaam ñi ngi rey doomu aadama yi àttuñ loolu loolu dama koy lancé ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax